não Do não do lado. Thank you. yìí. Báwo ń sọ́kọ́? Báwo? Ọlọ́run. fële ca Mbàkke euh, euh, jamono ji nekk ñuy wax ak yenn gannaaw rek ba mu jullee li nga xam ne mooy euh, juma fii ci juma ju Touba Mbacke daal dinay ziar li nga xam ne rek moom mooy xabru yi ànd ak nag ñi nga xam ne ñooy ko am les jeunes patriotes ñu daal di rek escorté li nga xam ne mooy oto Ousmane Sonko bile ngir dem rek fële ca meeting ba di meeting ba war a am fële rek ca Mbacke. juma Touba naka la jóge noonu gannaaw ba mu jullee rek li nga xamante ne moom mooy euh, euh, tisbaar fii ci juma bu Touba julli julli ak jumaam mu ngi noonu ci la njiital Pastef bi yegg Ousmane Sonko moom mooy yëpp moom Ousmane Sonko rek moom ngeen gis noonu muy dem euh, les jeunes patriotes daal di koy escorté ak ànd